seven five nine zero five. te daf leen naaw you know <laughs> <clears throat> allo. allo kon allo. salaamaaleykum eh, salaam. ci waa Thiaré na ngeen def. sant yàlla alhamdulilah. yéen a ngi naay. Ah, ñu ngi sa gannaaw. seen guest artist bi Freaky Joe la. <laughs> Freaky Joe. waaw. Ah, ok na nga tudd ak fay Kole. maa ngi tudd Aïda ok. maa ngi collège Churchillstown. Churchillstown ok. ok jërëjëf ah. ma si digal nag suma yaay ak suma mag yi. ok. Mhm. di ko may suma anti moom nga xam ne ba dañ ko doon génte. ndeysaan mhm. ah. ñaana doomam bi am fan bu gudd ak wér gu yaram. amiin ak ABC Learning Center. waaw. ok. ok thank you for calling. bye mu ne Freaky Joe la. Mm, waaw xam nga xam nga digga moo gën a sew si li fi yëpp artiste yi. seriously waaw bu di wax sew waxal slim. Ah, slim ok <clears throat> allo Kola. hello. yes hello. hello. yes. Saare. naam. nakam. alhamdulilah. seen guest artist bi Viper la. Viper. waaw ah, yow na nga tudd ak fooy Kola. de tur bi dama koy leb. da koy leb. waaw ah, foo dëkk waaw maa ngi dëkk pipeline. <laughs> ok ok ok. anyway uh, si kanam dinañ xam daal. understand la ku ràcc tey sa kanam. waaw waaw because ñu waxee bu ñu waxee làmp xam nga rek ngay teg ne booy bi ay ñëw. Mbadou moo friki jooy ñoo koo joxante. ñetti <laughs> kola la ñoo jël ñetta. Ah. waaw beneen moo des uh, allo kola. allo. na ngeen def. Why belong was my artist with a first class skinny like that? I'm not finna sorry. Yo kisa artist. No, no, no, no, no, no, squad vibe but then then here halde. No, no. Sorry. Why why kule why why kana kule ne vibe mo Why ka fi studio. Wala ndaba skinny, hanga skinny was sexy. Wow, why first class skinny? Slim, never slim. Yeah, wah look. <laughs> Okay, okay, vibe pala skinny boy fly. Okay, I'm hanga tu ba. Mas umi squad vibe. Ah, okay, okay, no problem. Okay. okay okay thank you. all right all right Thiaré. Uh, big up to squad vibe fa ñoom ñu ne. Mm-hmm. dañoo taxawal seen artiste parce que seen artiste dafa skinny. waaw ñoo ko wax xam nga ma ko de. Mm-hmm. squad vibe ba ko wax. Mm, tapalapa. <laughs> Ah, ah, ah. di ci bëggee ki nga xam ne rek mooy Ramatulaay moom tey la celebrate birthday di ko ci bëggee bu baax a di ko rek ne rek happy birthday to you my ki nga xam ne rek mooy suma yaay yaa Hadi Gueye fële ca Serekunda moom tam mu ngi celebrate birthday am sax na seen suma rakk ju baax nekk foofu ca Bakau tam mu ngi celebrate birthday am on Wednesday mhm. Kajatu Jaalo Jaañ yaayi Mouhamed Jaañ fële ca America mhm. happy belated birthday waaye fan bu dañu am beneen koola su last koola bi balaa ñoo dem ak Hello. Hello. Hello. Yes. Nare. Sante yalla. boy. Yes, kola. Man la Tall Mister nga ma. Mr Tall du ma la musa bàyyi. Eh, nakam na. mi ngi nii rek nakam demee. ah sante yàlla hana di leen dama rek. ay eh, no, ñoo la raw. dëgg la kay naka demee ci kaw. ngi rek way dama bëggoon nga gis ban artiste mo nek ci studio bi rek. Yeah, man. Come the last time, Bumafaneka, man, Ma Africa Joe, so I I hope so is him, man. <laughs> okay, jere ya Mr. Tell. <laughs> yeah, okay, boy. Okay. Mara matulago. Okay, nako diga. Yeah, right. Wow, cari euh diga ko tam ñu tam mëna singate. Balu ñoo def moy dañoo dem ak suñu next euh Dédé taxawal bala ñoo dem xam nga lan la bëgg xam. Ah? Ndax Friki Jo ak Viper ñoo fi gëna lappa. non non daf ma daf ma jaaxal ba ma ne sew ba léegi friki jo Viper friki jo. friki jo dem ma suñ suñ lifin bi suñ suñ break bi ma xool fa. suñ break suñ dellu see rek <laughs> ñu continuer. I wanna ride. fly, he's... <laughs> okay, okay, I, I dare say cute. he's skinny, he's fly, he's cute, he's an artist, he's a star, he's Viper. turn up, turn up, turn up. <laughs> What's up? Sunday yalla where I, eh, Sunday yalla. Uh, ah, no for them. Where Balanga them turbo bugo in no Them na de. <laughs> Yo man. Ah, Yo man. Sunday Yala, buddy. Um, what's up, Gambia? Send Domla. Viper Mr. Skinny Boy Fly Mr. Amore Lendo nuyu Hamga nga di bëggee si jigéen yi weekend la big jigéen yi pipeline farafeñe base di Gambia maa ya, bëgga yaa seen nga nañu fi kool ñëpp fanaa ñëpp ñi kool wax Viper ñëpp jigéen la yow ban bala ñu jaar sax ma bëgg xam ban relationship nga am ak jigéen yi sax yow ba am nga cëfe sax bul ma yàqal You, uh, I guess Jigani they are really supportive. Like eh, you know they come out they support and one thing like is since uh, last year since I started doing like really good as in we Bunkuma City Ganasuri, the Maria last a lot of women music you know, so it just shows that like Jigani Sukuma said la chowo it means I get them sick eh. <laughs> yeah. So okay okay no be say yeah it na because week be Monica uh, no women's week ñu ngi célébrer danga week loolu jigéen sax en général aduna jigéen daal jigéen suñu yaay suñu maam suñu jigéen daal jigéen si boppam ah jigéen daal lu am fayda la xam nga like they are survivors then they do that through whatever xam nga example moom sama maa si like my mom like she did a lot in my life xam nga you know I lost my father at an early age so then I want to like suma yaay moom ak feed cloth to this day I'm gonna hamgaluma alawani so okay one hamna jige numbel boy dal yang feel. they are survivors they are strugglers they are hustlers through whatever guy they do that then they do that dal hamgaluma alawani I believe man guy leaders link leaders definitely boy definitely going kuy kuy uf njobot dal mm-hmm. leader mm-hmm. you know mm-hmm. thank you Piper um <laughs> yaay Viper. ñu <laughs> ngi kontaan ci yow am nga di bëgg di bëgg a baajan tamit bu baax. waaw yaay Viper képp koo xam ne rek jigéen nga nekk waa kër Viper ñu ngi bëgg ci yow. Viper nañ dellusiwaat kan mooy